ak ñom ñaar tanière bi day recevoir ñaari xar kanam yu bees ci milieu de terrain wam El Madike Madické Kane bu Jaraaf ak Nampalis Mendy bu Leicester daanu ñëw ngir indi fraîcheur ci poste bi nga xamné mu ngi mel ne Aliou Cissé mu nga fay wër ay certitude ba légui El Madike Madické Kane di benn ci joueur yu gën a wane seen bopp ci Ligue 1 bu Sénégal stilam ñu mën ko assimiler ak ab libéro wu entrejeu bi waaye téréwul jeune lébu bi di projeté wu ngir duggal ay buts Lico firndel moy jamono meilleur buteur 1 ak été but yo xamné dugal am 24 ans liko ak Nampalis sélection locale ak bi 2018 ginnaw éliminatoire CAN 2019 ginnaw bon profito ci absence Koulibaly ak Salif Nampalys Mendy moom mësta sax jege li nga xam ne moom moo di tanière bi te ci ay kàddoom du ñàkk koo bëggoon milieu de terrain bi am 28 ans xam ne ne amul benn sélectionneur bu gaynde yu Sénégal yu ko mësoon contacter lu mooy Aliou Cissé mi koy doog a def mu wuteeg loolu li nit ñi jàppoon Nampalys Mendy nga xam ne ñu ngi ko formé ci AS Monaco mu ngi signé contrat pro bu njëkk ci atum 2010 ba muy am rek 18 ans ñetti saison gannaaw loolu mu jóge fa daal di dem ci club voisin bi di Nice foofee joueur bi nga xam ne ñu ngi koy dàkkantale Papi Mendy daal di fay wane boppam bu baax tax club anglais yu bëri di ko may gët waaye Leicester mooy ki koy mujjee jënd ngir mu mën a remplacer N'Golo Kanté mi nga xam ne ñu bëri dañu koy méngale ak moom ndax li ñu tolloo taay ak it style de jeu yoo xam ne nduróole nañu ko waaye Nampalis ñu ko doon xaaree foofu joxewu ko ba tax mu dem Nice suwat Leicester mi nga xam ba jamono yi nek gu fa titulaire indiscutable Boudé, ak équipe bu France nak jotna jouer joué ci U17 yi U18 yi ak U20 yi waaye musukaa Rombo ngir ñu sélectionner ko ci équipe nationale A bi. Sénégal mi nga xam jotna assurer qualification ci Coupe d'Afrique des Nations bi ba nopi war na mën a tax ba ñaari milieu terrain défensif yi am yaakaar ne daañu football seen simili yu njëkk yi ak mayo national bu senegaal